Thank you. ndiki Boy Ndiaye ak Mbeuss Boy Ndiaye moo ñu wan ginnaaw Mbeuss moo ñu wan kanam Boy Ndiaye fopp na loxo yi combat ba dem na ñu ngi lewtoo Boy Ndiaye tibb na suuf fukki ñaari pooji tey combat bi ah Mbeuss a rek Boy Ndiaye concentré ñu ngi Leewtoo Mbeusseung koy fixé daal di sëgg Boy ngi tibb suuf rek booy Niang ngi tibb suuf ñoo ngi Mbeus day dem Mbeus a ngi dem Mbeus dafa mel xel maa ngi suuf ñu ngi damante baaraam mës gis na wàcc mës na wàcc

déggal loolu rek ah ñoo ngay doonante ñoo ngay xeex mooy Boy Ndiaye waaye nee naa la ñaari xale yi lu ne waxante ko fi moo tax nee naa leen su ngeen paree fair play ndax groupe jël bi fa la làmb yi taxawee fa la yi ndaw yam nekk mëri ndaw yi ñëpp fa la nekk foofu la murum di xoyam xoyame Boy Ndiaye nuyu nañ la damay sant yàlla bu baax di jul siyant bi sant euh, sama ñaar waadu di sant euh, sama papa euh, dafa jóge ba Bawol bàyyi lépp ma man maa ngi nuyu ak zeg ak ñoom kaatim ay yaw jaal xam nga dafa dafa jàpp bu baax a baax mu sonn si di nuyu Kaana sambla di nuyu euh, ñoom Illa Serpa ñoom Kaana xam nga euh, waa Pikine Mboro yëpp sambla maa ngi nuyu ñëpp ñëpp sambla quoi di nuyu sama kër si Baba Diallo euh, di nuyu waa Malika ñëpp sambla ñu ngee dañoo bàyyi seen lépp ndax man di nuyu sama xarit sama doomu ndey muy caatu ëmma xam nga euh, dafa euh, dafay daj lu nekk maa koy nuyu baax waa waa di ko nuyu yow nuyu waaw yow matu waaw yow suñu yaay gi suñu lépp nga quoi waaw allah matu man dama mën a bëre waaw billaay euh, sama gars yi quoi ñoom Kaana ñoom Père Baba Diallo quoi xam nga day sonn si man dama teg lu méttee méttee méttee maa déclenché mbot di jug euh, bëgg maa tegal si seen balaa koy kat buuxu. jeex waaw. maa ngi nuyu nag ñëpp ñëpp ñu jàpp si. pare naa pour bëri ñëpp. waaw pour ñëpp. waaw waaw waaw pare naa pour ñëpp. dama ne nañu ko jox buuse wala liiru jaan mu reeree ko barke alquraan kariim maa ko indi barke Seydina Muhammad dama ne nañu ko jox buuse mbaa liiru jaan ah. kii du wax maay wax ah. nañu ko jox buuse mbaa liiru jaan barke alquraan kariim mu duma leen daan leen barke dem waaw man sa lan laa man kon yaay seen papa jeex na ah. kon kay ndam rek insaan dama ne nañ ko jël bu sa mbaa liiru caan barke sëñ Bamba ah. lamb ji amul caan te waa Pikine boole ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla ñu am ndam bépp mbëri Pikine bu nekk Pikine yàlla yàlla ndam nga di xool nga daan jël bu rëy jël boo xam ne dama ne su ma am ndam kay sa ah, eh, la wax si ndaxu Pikine sa damay ne Pikine am ndam ndax man